se حول مسير يسير بها الكسب الذي غادني لا كريم عليه معلوم يسير سكري بأقلامي وقلبي وجسدي لمن كان لي بالجود وهو سكور نزولي وتايدي ويسير الرداء من الله ونسير أميري لدى سيدي ومكسي وسيلتي خديما له وهو الخديم يبير أجل سعيدا ومن كل سوء وهو جل مجير مسيريا كوني عبد خادم النبي وامر البرايا للاله يسير سوري وايامي غدا لي شواهد بكوني عبد الله وهو الشهيد ستوري في الدارين مدهي محمدا بنزم ونزل وهو المهمسة بسوري كتاب الله وسنة التي بها أهتمي عمانا وقصور قصوري خلق والأهل عني تفرقا لمدي الذي عنه المدين خسير خلاص waaw équipe bii fi ñëw nag Ablaye Sylla yabal ko fi ci koñ bi mënuy may ndox euh, ma bëggoon waa koñ bi ñëpp xam ne ab Ablaye Sylla mi fi yabal yabaloon euh, équipe bi fi ñëw ñëwoon doon defar yoon wi yoon wii nga xam si ne moo jóge moo jógee nii ci baax ya jëm ndindi moo fi yabaloon euh, équipe boobu ñu yow fi ci màggal gi defaral ñu yoon wi ba mu normal te depuis boobu ba tey mi ngi ñuy mi ngi mi ngi ñuy mi ngi ñuy doole di ñu may ndox tey moo fi yabalaat équipe bii tey jii ñu ngi nii Baye Sall mii di moo ànd ak équipe bi ak sëñ bi ñëw fi ci koñ bi fekkuñu fi indi fi seetaan yi ndox yi di ñu jàppale ma bëgg waa koñ bi ñëpp génn jàppale Ablaye la ndax nit bu la joxee ndékki dig añ war nga koo gëm yàgg nañ ci koñ bi yàgg fee dund mosuñoo gis maanaam ku fi indi dara di ñu ko jàppale waxuma la ak am ndox ngay indi ay seetane ndox di ñu ko may ak di ñu defaral yoon mosuñu ko mosuñu ko gis ñun mosuñu ko am kon loolu ku la ko defal. kooku bëgg na lu baax kooku bis bu demee ba jot ci réew mi yu bare bare bare jafe-jafe yu bare bare dama ne damaa bëgg ñëpp génn xam ne Ablaye Sylla mii dafa jóg ngir taxaw nu ngir ngir jàppale nu ñun tan nañ ko dooleel jàppale ko waaw Cheikh Samba yi maa ngi koy sant di ko gërëm sama mag la sant naa ko gërëm naa ko ndax moo nu ubbil buntu boobu ban mën a jot ci Ablaye mii tey ci loolu ci loxoom la jaare waaw Ablaye nag ab murit la murit saadix la te kuy liggéeyal sëñ Tuubaa te loolu ñun xam nañ ci daal ndax bi bi xam bi ñu xamee loolu léegi yëgut waaye ci màggal gi waaye wane na ko wane na ko ndax li jëf ji mu jëf nii jëf ju rëy la loolu kurut ab bi doo ko def kon sant nañ Ablaye bu baax a baax di ko gërëm di ko wax ne ñun waa koñ bi ñun ñëpp danañ génn ànd ak moom jàppale ko ci li mu bëgg ñu jël réew mi teg ci loxoom mu yoroon ñu Sénégal benn réew mi demee ni dañoo wow koŋ am na ci yoo xam ne dañoo foire parce que tëj bu yàgg moo ñun suñu kër gi bu fi robinet gëj a toqum ndox ak léegi daanaka boo moytu da at te loolu doy waar la sax su jigéen ñi ku ci aaye da jël 1000 francs yoo xam ne da nga koy teg ne pour jënd ko ci wàllum togg gi waxuma la ak fóot nag kon loolu xam nga lu doy waar la te loolu dëkk bu toll ne Touba ñu nekk fii ci diggu Touba te ñoo am ndox loolu du liggéey tañ ne dañoo bëgg Touba bëgg a bëgg a suqal Touba loolu lu mën a nekke lu doy waar la léegi nag laay nag lii mu def nii wax dëgg yàlla rëy na ci ñun ñun sant ñun waa koñ bi ñëpp xam nañ ne Ablaye Sylla mi ngi leen dimbali effort bi mu njëkk def ci màggal gi rek moo ñu marqué ñun ñëpp ba ci xale yu góor yi koo xam ñu ne Ablaye Sylla dañ koy ñaanal Sëñ Tuubaa rek ñu fayal na ko kon bu bëggee dara ñun war nañoo sacrifice suñu bopp ñun ànd ak ñun ñëpp dama danaa ko képp koo xam ne si ne maa yow ñoo bokk ne ci koñ bi pour ñu jàppale ko. yéen ñi nga xam ne yéen a ñëw fekk si ah li ngeen def kontaan nañ ci lool ndax li tax kontaan nañ ci. kooku Ablaye Sylla moom. xanaa kontaan ci moom ndax di tax kontaan ci moom ndax nit ki boo sonnee tay mu jàppale la kooku amoo fayam te bu jógee nga war koo jàppale wax dëgg yàlla xanaa jàppale ko la si laa papam papaam si laa papaam laa njëkk papaam neex ndax day jàppale doomu aadama yi si laa njëkkee doogal si moom te moom ti maa ngi dégg si koñ ma sa fee def si koñ bi fii maa ngi koy dégg waaye damaa bëgg mu yokk loxoom mu dikk si biir koñ bi yaatal na ko koñ bi na dikk nee ko bisimilah na dikk si biir koñ bi waaw waa daan yaatal ko la nañ ko basa ngeen a dikk waaw ñu ngi leen di sant ñi ma àndal ñëpp di leen di leen gërëm di rafetlu taxawaay bi di di ziar waa ahlu waa daan gi yëpp di leen di kontaan di am contentement ci yéen di am mbégte ak fierté ñëw fii nga xam ne fii moom ah, fii suñu ay jur a fi nekk ak suñu ay kilifa di sant bu baax a baax a baax suñu wayjur ji fi nekk di ko gërëm ci taxawaay bi bu baax a baax a baax comme niñ koy faral di defee rek euh, fépp fi nga xam ne nii am nañ fa jafe-jafe ci wàllum ndox ku ne xam ne ndox moom mooy mooy léppi doomu aadama président Abdoulaye Sylla ndigal li mu joxe mooy dem leen fa ngeen taxawu ko taxaw ngeen di koy taxawu nag ay mesure provisoire la maanaam mesure ndéggandiku yu mu jël la waaye lim nar ci ndoxu tuubaa mi moom incha allahu rabbi fan yi di ñëw dina ci am ay solution yu am solo yoo xam ne nii apporté na ko ci incha allahu rabbi parce que mbir mi dafa doy waar dafa doy waar trop toog ay lu mat ay juróom benn weer juróom ñaari weer amoo ndox ci dëkk bu toll ne Touba loolu lu doy waar la loolu dama ko mën a jàpp néglisance autorité yi fi nekk la ba tax na président si laa ku nekk gis na taxawaayam ci askan wi saa yu ko askan wi soxlaa rek moom day day ñëw taxaw leen baax a baax a baax ba tax na nag ñun moom dañoo war a li ñu naan jël suñu destin en main maanaam suñu mbir dañ ko war a téel suñu loxo dëgg yàlla ba tax na daal lii ñu jëm nii mooy échéance yi ñu am ci taxawaay bu am solo ba tax na daal ñun jeune Touba ñi ngi mobiliser wu ñu ngi mobiliser wu di def ay porte à porte yoo xam ne ci lañ jëm fan yii di ñëw nii organiser wu ci quartier yi lii nag moom ab nuyoo kese la xam naa liggéey bi dëgg-dëgg mi ngi mi ngi ñëw ñu ngi ci ñu ngi ci ñu ngi ciy waxtaan ak ñi ngi ci war a waxtaanal ak ñi nga xam ne nii bokk nañu ñoom ay gis-gis comme ni ko président waxee rek fexe ba quartier yëpp ñu occupé ko animer quartier yi incha allahu rabbi loolu mooy yéene ji loolu mooy ndigal li. mbir mi wane na boppam lii mbir mu doy waar la boo xoolee robine yi rek di nga xam ne jafe-jafe bi mi ngi nii waaw boo ko xoolee rek di nga xam ne ndox mi moom gëj na fi lool lool ba tax na taxawaay boobu daal wax dëgg yàlla président si Sylla jot na ci te dina indi ay mesures yu am solo yoo xam ne nii fan yii di ñëw di ngeen di ci teg seen bët incha allahu rabbi ba tax na daal ñi ngi lay sëñ Modou ñi ngi lay sant bu baax di la gërëm. yow mi nga xam ne ni yaa ñu nekkal ci wet gii di di jeune di jeune bu déterminant di jeune bu engagé wu wax dëgg yàlla ñu ngi lay sant di la jaajëfal di la wax ne lépp li nga xam ne nii soxla nga ko ci say ci say activité fii ci koñ bi ci wàllum jeunesse bi ni nga leen di mobiliser porte à porte yi li nga ci war a def animer quartier bi bu soobee yàlla di dinañ la ci accompagner taxawu la ci taxawaay bu am solo loolu mooy ndigal li loolu la jëwriñ président Ablaye Sylla wax loolu ci la ñuy nekk ñu tàmbali di organiser wu incha allah fan yii di ñëw lépp dina activité yi dina tàmbali bu soobee yàlla di leen sant bu baax a baax di leen gërëm bu baax baax. lii Ablaye Sylla xet li si waa koñ leen may ndox kenn ku ne xam ne Ablaye Sylla defoon na ko jamono yi ñu waaj màggal ñëw na fekk doon doy waar lool. kenn ku mun foofu jaar ba dem ndox mi bari lool mu jël équipe defaraat yooyu ba nit ñi mën fay jaar dem ci bàqee ak joxe seen yitt dina jël jàll ci penc mi dina ndox ma fa nekkoon maasale ko defaraat yooyu ba ku fi ba gan ñi xamee fay jaar Ablaye moom tey moo fi yabal yabal équipe ñu ñëw fii waaj màggal ba ndëgën yi robinet dafa tëj amuñu ndox mu naan ku aaye da jënd ndox kuy fot da ngay ndox ba ci ndox mi ngay naan sax da ngay wër di ko di ko jënd tey jii Ablaye yabalaat fi ab seetar ne mu ñëw ci koñ bi di ñu may ndox xet li waat ñu kon fu mu jaar daan ko sant di ko gërëm sama waajur wi nag nee mi ngi sant Ablaye Sylla di ko ñaanal feex Sëñ Tuuba élection yi nga xam si ni ñu ko dëgmal yàlla na ko suñu boroom may mu jot réew mi ci jot bu anam bu rafet ndax gëm nañ ne moom moom si Ablaye bu jotee ci réew moom jàqare na rek loolu moom moom gis nañ ko moom ndax dañu ko wan ndax ku la ku la li ma li may wax rek ku la jox ndékki moom bu la diggee añ rek nga sa xel dal te Ablaye fi mu commencé ak ñun bi nga xamante moom yàggul waaye li mu def dal na suñu xel lool lool lool rafet nañ ci njort ci moom ñu ngi ñaan rek suñu borom nga xam si ne mooy joxe kàttanal ko ba li li nga xam si ne mi ngi koy bëgg ci askan wi suñu borom teg ko ci loxoom waaw ñu ngi ñu ngi ñaan di ko ñaan te ko jàppale nag. yemuñu ñu ñaan dong danañ jóg ak fu mën a dugg ci ruq-ruqaan yi génn nit ñi ndax nit moom njariñ lañ koy doyee te Ablaye am na njariñ waaw am na njariñ ab taalibe la taalibe Sëñ Tuubaa la buy liggéeyal Sëñ Tuubaa kon taalibe Sëñ Tuubaa buy liggéeyal Sëñ Tuubaa faaw ñu jàppale ko. li wax paa bi mu ñaana ko baax a baax incha allah mu jot ci réew mi ak jàmm waaw te daan ànd ak moom liggéey bi nag daan ànd ak moom liggéey bi daan xool doomu aadama yi fu mu nekk ñu ànd wan leen. ñu si sëñ Ablaye ci kàttanu yàlla ñun daal ñu ngi seen ginnaaw te bu ñu jógee du ñu am fii dañ sol suñu dàll yëpp dox ci li ñu war a dox ndax suñu njariñ la waaw kon na ko góor gi ñaanal baax a baax a baax sant nañ baax a baax a baax.